maxtaaroo liya bila masiri yasara li mu yasirul asiri maxtaaroo liya bila masiri walla lahiinu siwaaya mudbira bima ala zari yaduumu dabara maha tawajjuha almakaari liya baaqin haba bi zikrihi wa an waraditu wa wani bila makariha wala amradi radali xayri jeedi shaytana man tayabal mamara wal awtana farali xayri jeedi laxiinu yasooqo li xayrin almuinu hadiyati min alilahi wannabi kulliyati safat wa safat nubi tawfiqu hadin qaado alilhamu قد بيالي مال بيام بدت لي اليوم برب الخيب أعاسني ممن خلوا وخيب لا يتوجه للنحو مطب أني مهد مكاره وتعب سعادتي بغير مهو كتبت وكوني العبد الخديم قد سبت شكر لي ميسر العسير مختار لي بلا مسير براني الباقي من العيوب وكان لي بأفضل الخيوب سلمني الرحمن في دنيا من أقدار عاقلا وهبا قدم ملكني الرحمن والرحيم دنيا وأخرى كلما أحوم أبدي سبيل الله للهداة زاخر مجل رحمة المهداة ليا يقود الله علما لم يرى قد لغيره ومن سواه لم يرى ليا يقود الله علما لم يرى من غيره ومن سواه لن يرى ليا يقود علم من تقدم ومن تأخر وتبدل خدم هادنا الجميع دون شكي وقاد لي كسفا أزال شكي أراني الرحمن سر الدنيا يا باس الخلق دون سنيا لا ندلي القلوب والأبدان سالمني البيدان والسودان رجعت على خير رضا الرحمن وقد كفاني كدر الأسمان إباء من ليس يموت سرمدا ليتوجه بمدي أحمدا محمد خير البرايا صلى عليه بتلم باق جلا إلا يا قادم مدعو ما قادا من الخسائس ردا فالقادا نلت بمدي المنتقى ما لم يكن قتل خيري وبي فس بكن آتاني رحيم ما يخبتني في دواما كل سافيعتني لي يقعد في الجنان أبدا ما لا يراه أبدا من أبدا رحمة رحمن رحيم لم يزل كليتي كفت مكاري الأزل إبراهيم لم يزل رحمانا ما سيقاد للأمانة يقودني الباقي دواما البسر وقد ما أني ستتعسر مع رسول الله كل ما سدر مني من البيوع إلى القلقدر mbàkke noo ngi tuub te di la tuubal di tuubal mboolem taalibe yi tey nag ñu ñëw di la siyaare te di la sant si muy njabootu xasida yi bootu ci gannaaw rakk ju tedd jii di sëriñ Amsatu Mbakke waaye ànd koog bokkam yii teew fi sa kanam buñ koy tàmbali kay dañ koy tàmbale ci sa jëmm ju tedd ji ndax yàgg naa wax ne sëriñ mun taxa sëriñ bi ci sunu biir la ko jëlee def ko muy borom Tuubaa ko xam sëriñ Muntaxa xam ko xasida yi ca baawoon ba tey kon kenn la ci ñooñ xasiida yàlla na jataay bi yàgg ci barkeb xasiida yi waaye sëriñ Amsatu mi ngi ànd ay kilifaam mën nañ ko tàmbale ci sëriñ Isaaxa Mbakke mi toog sëriñ Abdou Samata ngi nii nga xam ne kenn la ci ñooñ xasiida ci taxawaayam bu rafet sëriñ Moussa Mouhamadan nga xam ne mooy sëriñ samba sëriñ ma sàmbam sëriñ amsatu ci liggéey bii muy liggéeyal maamam waaye ax ma Gaawaan mii itam ne ci sama gannaaw noonu rek la mel waaye Mbàkke di la seeral ne mbir mi daa yaatu ndax sëriñ Seex Mbàkke Baay Faal mii moom sëriñ Abdou Latif ci ñoon la bokk te loolu yàgg na lool ëpp na ñeen fukki at mu bokk ci suñu biir ànd ak ñun liggéey bépp léegi rek bi ma joxee loxo li mu njëkk def mooy sama wàlla ngi nii mbakki noo ngi santaat bu wér a wér ndax kat danoo jàppoon ne liggéey bi nun ndongo yi rek waaye bi ñu gestoo gis njabootuk sëriñ bi ci sunu kanam tax na sunum xel dal sunu xol sedd sunu fit dëgër te yemul ci ñoom seen jigéen bu baax bi ci sawa nag di na soxna bu Bousso di na baali ci bëccëg rek déggante nañu mun ne jàppalewuma leen gàttandu leen dama bokk ci yéen ci sama addiya day dikk tegu ci seen loxo mu bokk ak mu ànd ak li sëñ am say indil sëriñ bi ngeen xam ne ci seen biir laa bokk addiyaam ñëw na mi ngi ci biir liggéey bi kon Mbàkke ñoo ngi la koy sereel di xam le ne addiya ji fi indi def ko ci walis day daa gunge addiya ji nga xam ne moom lañ jiital teg ko ci sa loxo ndax jàng nañu ñetti téeméeri kaamil ak juróom-benn fukki kaamil ak juróom-benn kaamil nga xam ne daaw bi ñu fi jógee ba tey jii dañoo jàpp ne bis bu ne ab kaamil war na suñu digg ak yow loolu lañ la liggéey bi ak limu xasida yu bari yoo xam ne mën na si ko lim looloo jiitu ñu soog cee teg lii ndax Cheikh Abdoul Khadir sa waajur wa tedd wa mos nañoo wax ne sëriñ bi day neewoon na danaa ne ci barab boo xam ne addee jutul alxuraan du xasaayit du ma fa fekk daal na ca foog naa ne jege na ko te ba mu koy wax ak léegi eh, ñeent fukki fanweeri at mu mat kon tey ji la ko gën a jege moo tax lu ñuy liggéeyal Serigne Touba alxuraan ak xasida moo ciy jiitu waaye Cheikh Rafal Babul Mouridina def ne lislaam juróomi ponk la waaye yoonu murid ñaari ponk la mooy ju ak ja jébbul ak joxe kon gannaaw jébbal nañu li dëggal sunu murid te dal sunum xel mooy ñuy dajale sunu addiye di ko teg ci sa loxo nga def ko ci liggéey borom Touba bi loolu moo waral sëriñ am sa ci sonne soññee ci bokki taalibe bi ànd ci moom ba ñu teewaat fii ci sa kanam fas la yéen a jëbal addiyu jooji di ñaan ci barke mbootum xasida yi sëriñ bi nga xam ne dara tëwu ko mu doole guddal sa fan te doole wéral say cër xam naa ni sax sa yéene ci borom Tuubaa góor lott na ci xam ko waaye fu mu mën a todd toll noo ngi ñaan sëriñ bi mu defal loolu kawe sa njort ba mu leer na leen lii baaxul sëriñ Tuubaa yooyu foogoo ko woon yàlla na ko am ci barkeb xasida yi sunu xol sedd na sunu xel dal na ci sa toogaay bi Mbakke mu mel ne mënuñoo guddal sunuy kàddu ndax xaw naa guddi te war nañoo dem ci liggéey bi waaye dama doon jottali kàddu dongo yi rek jox sunu jawriñ sunu kilifa sunu xarit sëriñ Abdou Samad mu àggale kàddu yi ñu jébbale addiye yi nga ñaanal ñu ba déwén ak jàmm ñu fekkar la fi ci jàmm ak salam barkeb xasida yi. Quraan ji ak xasida yi li ko jëmmal. mooy juróom fukki nooru daara yi nii nga xam ne soxna bu Bousso soxna baali moo ko booleeg addiyaam gëngee ko liggéey bi bisimilah. ndax liñ doon ñaan rek mooy. jotaay bii. mboolem ñu amoon yéene. fab seenu ñaq. liggéey bi. dugal ko ci biir liggéey bi. te jaarale ko ci daari daari xaside yi. te jaarale ko ci daari xaside yi. mel na ni ku ñëwuti sa sa jëf ñëw na. mel na ni ku ñëwuti sa jëf ñëw na. Abdul Ahad waxoon rek. nee na Mbàkke la sëñ Abdul waxoon rek. mooy saw doxin. nee na mooy saw doxin. moom mi itam. nee na moom mi itam. du la toppandoo. du la toppandoo. waaye sañ na laa roy. waaye sañ na laa roy. ndax toppandoo sa morom. ndax toppandoo moom sa morom. roy nag defloo nañ ko yonent bi sax. roy nag defloo nañ ko yonent bi sax. li muy roy ci yow mooy. nee na li muy roy ci yow mooy. bala ngaa digal kenn dara. bala ngaa digal kenn dara. da nga jiitu. da nga jiitu. bala ngaa joxe. bala ngaa joxe. bala ngaa jox joxe laaj nit ñi. bala ngaa laaj. da ngay joxe. da ngay joxe. ba fàkku. ba fàkku. ba desewoo dara. ba woo dara. doog ni ñëw leen. doog ni ñëw leen. moom itam mi ngi roy ci yow. moom itam mi ngi roy ci yow. la sëriñ Abdul Ahad waxoon. la sëriñ Abdul Ahad waxoon. dafa wax ne addiya. dafa wax ni addiya. ki koy joxe. ki koy joxe. ak kiñ koy jox. ak kiñ koy jox. nii rek la demee. nii rek la demee. ak gaal rek la. ak gaal rek la. yow miñ koy jox. yow miñ koy jox. gaal nga yor. gaal nga yor. ku fa mbubbam di ko jox la ne la dencal ma ci. ku fa mbubbam la ne la dencal ma ci. ba gaal ga fees. ba gaal ga fees. bisub xew jotee. ba bisub xew jotee nag. ku ne dikk ne la jox ma saa mbubb ma. ku ne ñëw ne la jox ma saa mbubb ma. nga jox ko ko nga jox ko ko. ba gaal gi jeex. ba gaal gi jeex. bu ca sa mbubb mu demutoon. bu ca sa mbubb demuloon. da nga naan tocc. da nga naan tocc. ndax gaalu kese. ndax gaalu kese. wàllu wutum ndaje. wàllu wutum ndaje. mel na ni nag. mel na ni nag. noon yi ngay doxe noonu yi ngay doxe ba fu murid yi taxaw. ba fu murid yi taxaw. jëf jëf. ëpp leen jëf. nga ëpp leen jëf. ëpp leen ca pas-pas. ëpp leen ca pas-pas. xanaa dañuy roy rek. xanaa dañuy roy rek. moom mii nag. moom mii nag. loolu lay roy ci yow. loolu yi lay roy lay roy ci yow. bu tàllalee loxoom. bu tàllalee loxoom. danaa kaay leen ñu ànd liggéeyal sëriñ bi. danaa kaay leen ñu ànd liggéeyal sëriñ bi. joxe lim man lépp. joxe lim man lépp. ak lim mënut. ak lim mënul. miraasu. miraasu. ne ku bëgg ku bëgg a dem ñëwal ñu ànd. ni ku bëgg a dem ñëwal ñu ànd. ko defee. bu ko defee. laa biire jullit yi laa biire jullit ñi ak taalibe yi ak taalibe yi rawatina ñooñ xaside yi rawatina ñooñ xaside yi lu waay ruqe ruqe lu waay ruqe ruqe dana ko fa fekk ndigalam dana ko fa fekk fàttali la fàttali la ndax moom ndax moom bu sañoon bu sañoon du dem du dem te ñoom te àndut ñoom kon ku lompañ kon ku lompañ mu dabi la mu dabi la dimbali la dimbali la ba nga jof si ba nga jof si loolu yi nag moo indi jotaay bii moo indi jotaay bii. muy ñaan ku ci def dara. muy ñaan ku ci def dara. nga nangul ko ko. nga nangul ko ko. ndax boo ko nangoo sëriñ bi nangu ko. ndax boo ko nangoo sëriñ bi nangu ko. te addiya. te addiya. la ci sëriñ bi waxoon sëriñ Modou Moustapha. la ci sëriñ bi waxoon sëriñ Modou Moustapha. ba bis bii. ba bis bii. ku ko joxe. ku ko joxe. te am ci pësteef. te am ci pësteef. am ca lam waxoon sëriñ Modou. am ca lam waxoon sëriñ Modou. te yaay sëriñ Touba. te yaay sëriñ Touba. kon nag mboolem ñi ci def seenu ñaq. kon nag mboolem ñi ci def seenu ñaq. te xam ne fii mu jëm. te xam ne fii mu jëm. mënoon nañ cee booleeg almet. mënoon na cee booleeg almet. nee la la neexee taal ko. nee la la neexee ko. waaye xam nañ ne. waaye xam nañ ni. bu àggee ca daara yi daara ji tax ñu di ko def. bu àggee ca daara ji tax ñu di ko def. dana àgg ci. dana àgg ci. xemmem teefu Serigne Touba. xemmem teefu Serigne Touba. di aw naalam. di aw naalam. bu mu fi bàyyi woon. bu fi bàyyi woon. moom képp lañ xam lu mu fi bàyyi. moom képp lañ xam lu mu fi bàyyi. ak jumaa ji ak jumaa ji. loolu yi nag di sa tawféex. loolu yi nag di sa tawféex. di dox di dox. ba egsi ci yow ba egsi ci yow. ñi la jiitu ñi la jiitu. tàmbalil la ko tàmbalil la ko. waaye yéene la. waaye yéene la. nga àggale ko nga àggale ko. ba mu egsi ci yow ba mu egsi ci yow. kon nag dañuy boole. kon nag dañuy boole. cant cant. gu ku ngërëm. gu ànd ku ngërëm. akuk ñaan akuk ñaan. nga àggale ko coleet. nga àggale ko coleet. la nga ca bëgg lépp nga am ko. la nga ca bëgg lépp nga am ko. te am ci ngërëmal sëriñ bi te am ci ngërëmal sëriñ bi. sëriñ murid yëpp a sant. bi murid yëpp a sant. murid yëpp bég murid yëpp a yëpp la seen xel dal murid yëpp la seen xel dal waaye nag ahlul xasaayit ci raw waaye nag ahlul xasaayit ñoo ci raw ndax da ngay seen wéttal ndax da ngay seen wéttal tey seen garanti tey seen garanti démb démb tey doog a ñëw kon nag seen xel dal na lool seen yaakaar yi dëggu na seen yaakaar yi dëggu na sëriñ Amsatu nee na sëriñ Amsatu nee na mbooleem mu àndal mbooleem ñu mu àndal di ñoom ci liggéey bi di ànd ñoom ci liggéey bi mi ngi yeesalaat loxom mi ngi yeesalaat loxom teg ko ci sa loxo teg ko ci sa di jaayanteeg yow di jaayanteeg yow ñëpp ñoom ñëpp ñu ànd fas yéene liggéeyal borom Tuubaa ci yow kenn ku ne foo mën a sukk yeeslu ak ku mën a doon yaay sëñ Tuubaa kon na jox gi ma lay jox loxo murid yëpp te ànd ak ñoom di liggéey dañ laa jox loxo inna lazina yubaayi'uunaka innamaa yubaayi'uuna Allah yadullaahi fawqa aydihim loxom bi kon moo loxo murid yëpp la ko joxeel jébbaluwaat gii murid yëpp jébbaluwaat ci yow sëriñ bi ñu ne fas yéene ko ñu ba bis penc ba ba fu mën a nekk nee ñu ngi yeesal suñu jaayante moom rek la wut tey jii ak ëllëg jërëjëf ñu di ci boole nag cantuk soxna si xam naa ni sant sa bopp rek la waaye moom taw fi xam mi ngi tàmbalee ci sëriñ Soxna bu tudde ko soxna jaar sëriñ Abdou Lahat jox la ko ni ko na liggéeyal sëriñ Tuubaa ci yow nga seeral nu sa ngërëm ci moom ay yoon yoon nga seeral nu sa ngërëm ci moom ay yoon yoon nooru daari ni bii mu la jox nooru daari ni bii mu la jox du xëy mukk te jàng ko ba mu jeex xam nañu digga ak moom moo tax mu foog ko def nii kon nag alal jim ci boole loolu jot a tudd bëggul sax ku ko tudd waaye nuuru daari ni yóbbaale na ko nun murit yëpp nag noo ngi ñaan borom tuba te ñaan gii murit bu la ko wax ak bu la ko waxut moo ne ci moom mooy nga àgg fa nga jëm liggéey ko li nga ko bëgg a liggéeyal ba lépp sotti nga yàgg fi lool wér lool ba àggale sa mébét yëpp sa naal yëpp mboolem ngërëm lu sëñ Tuba yonent bi mas gërëm sëñ Tuba mboolem ngërëm lu bi mas a gërëm sëriñ Tuba yàlla na ko sëriñ Tuba gërëm ëllëg ci dara daraje yonent bi ñu ngi lay ba bayit woowu sëriñ bi wax yàlla na taseeg yow ndax jamono ji lëj na ndax jamono ji lëj na jaxasoo na murid yëpp jaaxle nañ waaye buñ la xoolee xam li ci lu luñ mën a gisit duñ jaaxal kon lépp lu song yoon wi lu mu mën a doon te bokku ci mbaa muy am ruur ne ci biir yoon wi dalale nañ la xel ba amuñ ci njàqare yàlla na ko sëriñ bi seppi bu dee weñ wu dugg ci soow yàlla na ko dindi sàlli ci àll ba ba dara bañ koo jox jege suñu yaakaar jëpp ngi ci yow ñu ngi yeeslu di ñaan nag li sëriñ bi wax yaa rabbi yaj'alil muridina maa fii xisnika alxasiini wa samlaj maa yal na ame ci yow murid yëpp àndandoo benn jofal ci ci yow ñu ànd ak yow jofal sëñ Tuubaa jërëjëf